directeur des aéroports du Sénégal euh, tey jii nii euh, une question la ñuy posé wu mooy est-ce que euh, le Sénégal est en sécurité suñu frontières yi parce que ñëw Juan Branco démb Sénégal jaaxal na ñu bëree bëree bëri loolu noo koy noo koy noo koy noo koy analyser comment ça a pu être possible ci koo xam ne daf fi ñëwoon ñu embarqué ko dellowaat ko automatiquement bi pas mu nax ñu ba dugg Sénégal ñëw def conférence de presse narguer les autorités narguer le procureur. je ne pense gis nga euh, bu ñu dafa jaar aéroport. Mhm. dina am lu ma jaaxal yaa ngi dégg dégg naa nag ñu ne dafa jaar Gambie. Mhm. mais xam nga booy seet euh, Gambie ak Sénégal am na ay dëkk yu jegeyantoo yaa ngi dégg. am na sax nekk. waaw am na heure yoo xam ni peut-être buñ ko fay jàllale mënoo contrôler. Mhm. frontière Gambie yëpp. mënoo ko contrôler frontière Mali bi yëpp donc euh, ni mu def ba dugg enquêteurs yi buñ buñ ko téyee dinañ xam. yenn complicité la am ak nan la def bu dugg. mais est ce que amul quelque part dans la mesure où euh, son nom xamoon nañ ko. parce que ñëw na fi bañ kii ko delloo ko lu ñu bëgg wax mooy tey Sénégal su waruñu xoolaat déjà faille bi est ko situer parce que aussi voilà yomb na trop benn ñaar aussi relation ak nos voisins est ce que waruñu ko xoolaat parce que lu mel ni euh, Gambie la wàcc ils l'ont enregistré xëy bu fekkoon ne am nañu liggéey bi nga xam ne dafa nekk normal Sénégal te yow doon nañu ko signalé ñu jël suñu ay matuwaay balaa egg si. bon xam nga dëkk yëpp yemuñu euh, sur le plan sûreté ak sécurité. Mm parce que boo seet euh, aéroport bis bu la defee ci liste rouge boo njëkkee wàcc balaa nga naan lii gars yi dinañ ko xam ba jàpp la. Mhm. ndax collaboration bu am. Euh, Interpol sécurité ak yeneen mhm. yeneen. ñu ngi doon pousser sax ba di installer au niveau des frontières ak sécurité ba xam ni dinañ xam ñuy dugg ak ñuy génn. Mhm. mais réew dafa yaatu mënoo ne damay contrôler. tous les points boo koy seet en Europe dégg nga les clandestins fu ñu jaar. ci géej gi wala ci suuf si. déedéet dañuy jaar rarement aéroport déedéet suuf si da ngay gis ñoo xam ni dañuy dañuy jaar Maroc fexe ba bët. Mhm. dugg Espagne fan naa ni jaar ci Espagne ak nu su duggee doo xam mais li wëtu woon mooy ni ma xamee les forces de l'ordre mhm. ak seen xarañte. du yàgg te dinañ xam nu mu fi duggee ak fu mu jaar. Mhm. loolu moom euh, amul ci sàkk du càgginu nag faiblesse ba manque de sécurité Sénégal li fi am ci sécurité bari na dëkk yoo xam ne amu ci ndax bari na lu police di def bari na lu gendarmerie di def du nga ko siiwal te nit dina def loo xam ne la preuve da ngay seen sa ay crimes yoo xam ni bu amee dañ toog fukki fan ñu jàpp ñu ko def. Mhm. te loolu xarañ te police ak gendarmerie ko may.